waa gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi chef Rama tey nag ñu war a ñëw ci ki nga xam ne mooy Pape Ousmane Sakho war a wax ci li nga xam ne war na ko mën a apporter équipe nationale bu a wax ci nan lañ a gaawee ci moom balaa muy aase ba duñu mën a apporter dara mais dañ ne moo suñu coach bi dogal li nga xam ne fédération bi ñi nga am yaakaar ne dañ ko jël mais laataa loolu dañoo ñi kan ci page bi ko notification bi nga xam ne mooy Aliou Cissé nag ñu ko jëlee ci place bi nga xam ne mooy place coach bi ndax ñi ngi dégg fédération bi ñi wax ne bi ci njëkk mooy Aliou pour pourquoi moom munul nekk coach boo xam ne ah, liñ ko waxoon ma def ko def na ko Sadio Assane ñooy wax maanaam dañ ko waxoon na ko bëgg nañ nga egg quart te gis nañ ne eggul quart beneen bi ñu gis ne anam bi woowe joueurs yi dañoo jàpp ne dafa am ay parparloo ndax day am joueurs yoo xam ne day woo ñëw ba ca mondial ba te du ñu utiliser te football mondial passé foofu. loolu nag mu xaw a jeexal ñu bëree bari ñu ne pourquoi Aliou Cissé mënul woo zone yoo xam ne bu ñëwee dañ mën a apporter lu bëree bëri équipe nationale bu Sénégal ak maanaam mu am zone yoo xam ne ñoom bu neex seen kër buñ doxee dañu woo buñ doxul dañu woo buñ tojee dañu woo bu buñ tojul dañu woo loolu nag ñoom xaw na leen jeexal. ñoo tamit objectif bi ñaari objectif lañ ko tegaloon moo ñu fexe ba kenn moo si coach Aliou bu demee coupe du monde mais quart de finale boobu nag ku xam ne été nuru ko deuxième ba mooy kan bi ñu jëm mu gardal ko du monde coupe d'Afrique bi pour maa nekkaat champion d'Afrique ñuy wax ne boobu nag man nam ñëwagul te war na ko mën a mais gis nañ invité nag xam-xamam jàpp nañu foofu la yem mais man nag damay waxee ci sama xalaat sama sama xalaat boo si ma xalaat mooy kii di Aliou Cissé fédération bi nañ ko bàyyi mu liggéey ba coupe du monde coupe ba xam na jël coupe bi mu jël ñu doog a jël dool muy jël wala moom bu ci jógee buy def sene mu def sene ndax liggéey loo xam xam ne ci équipe Sénégal waruñu ko dàq te en même loo ñàkk ñàkk xam xam nga ne mi ngi jëfe xam-xam nekku ku ni daal kon nag gars yu jógee ci université ñoo ci suñu gaynde bi di Pape Ousmane Sakho nga xam ne kat moom da doon feete anniversaire mi ngi dugg ne ci li nga xam moy 26 vingt ans kon nag Pape Ousmane Sakho mi nekul xalé mi ngi bëgg âgé pourquoi pas ay Cissé man ko wo mu ñu école am Sénégal jéem fa am benn place toj ko pour kër mi nga war ko mëna jënd nga xam ne am ay 28 ans ma nek jour mu xam ci monde bi mu mëna apporter lu bari école am Sénégal ndax légui jour yi dañ dañuy fo ba 36 ans ta bu ko Issa ba mën kër di football war na am footballeur yeen 10 ans apporter école bu lu reëri ndax ay bàyyi xel ne fubal Afrique dafa metti da mom xalé la bo xamne ak moo yàgg ci foot Afrique te war na mën a apporter lu bari ci Sénégal ci kaan yuy jëm te kaan yuy jëm nag dañ ko war a jël wóoruñu fa dem na jël war a bàyyi non non non ñun dañoo yéex a jël coupe a jël jaar ko jëlaat ko bokk ci ñi nga a nekk équipe mag ci Afrique kenn duñu waxaat ne dañuy lu teew favori ci papier lañ bëgg a nekk kon nag Pape Ousmane Sakho mi ngi noonu xaale boo xam ne dafa mën la muy def vraiment toujours ni muy dribblé ni muy dóoree joueur la boo xam ne boo koy seetaan da xam ne li muy def lamatu ko kon kay wéy abonné di commentaire de partager de liker ngeen ñàkk xaar suñu seen ci Rmba Sport ak yeneen vidéo merci beaucoup